la xam nga nañ ko waxtaane woon ci kër ga xam nga le temps et le seul juge am na loo xam ne suñu borom dafa na ko moom bu làq ko di way nga ne coonee way loolu moom euh, mooy maanaam géej am na ndox te loolu liggéey la bu mu def moom moom personnellement fan coon nag euh, waaw waaw ba ba ba ni <laughs> ah. bi ma nekkee xale su ma amee doom damay tuddee bii coon bi balaago loolu ma am na euh, man euh, euh, maanaam moom dañuy wéet mu ne ma buur addina coon laa ci gën a bëgg barke alxuraan buur ma ne quoi mu ne ma nogoy nogoy jëng mu jur mhm. mais addina coon laa ci gën a bëgg ma di ko xool di xool kanam gi xam nga nit ki boo ko yoree jàngal ko yóbbu ko fu ne ala kulli yàlla dina am trace bu des bon euh, c'est que nag euh, nit ñi ñoo baaxul nit ñi ñooy fekk fu dara xajul mu dugal fa ay puso boole koog seen i benk ñenk nangam nangam nangam waaye alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xam ne suñu borom mi nga xam ne moo mën a defar te moo ñu boole ñu nekk ak bokk ndax bokk gi moom choisir ko man choisir ma ko donc suñu borom mi nga xam ne moo ko nas euh, avec le temps defaraat na ba lii mën a nekk tey alhamdulilah